Generation yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf jalti jalti gi dëkk bi xëyee démb moom la yéenekaay yi yeewoo ubbi l'observateur mi ngi ñuy nittali bëccëg gi ñu dund démb ci Ndakaaru li waral coow li mu di procès Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko bi mi ngi ñuy wax ne dàqaar nañu ko ba alxames fanweeri fan ci weeru mer xët xët wax ju ñaaw ak saagante journal bi nee nañu lépp amoon ca salle bu tribunalum Ndakaaru audience baak na mu demee ba nañu ngi ñuy waxit manifesté yi amoon démb ci ndakaaru ñetti bisu Dakar dem dikk ak ñaari watay particulier yu ñu taal démb ci centre osan bu Mermoz bi ñu bëggoon a sottiwul station essence Total ak Sonatel yu Parcelles Assainies yi ñu attaqué démb lu ëpp ñetti téeméeri manifestant journal bi nee nañu police ak gendarmerie jàpp nañu leen démb enquête dina kay mi xëy ci xëta mu njëkk ay photo yuy wane li xewoon démb ci dëkk bi mi ngi ñuy xamal leen bi muy wax ne ñeenti weer ngi ñu may sosal ak di gàkkal sama der jot na nag ñu régler ko mbir yi féete boor ñu jàll ci leneen bëccëgu defante du journée confrontation libération nee nañu moo am démb ci Ndakaaru Ousmane Sonko ba muy dem démb tribunal force de défense ak sécurité yi ñoo ko mbogo mbogo yóbbu ko bi ñu renvoyé audience bi mu war a ñibbi si takk der yi ñoo ko embarqué de force isolé ko ci këram ga ca cité kër góor gi laata ñu koy dugal ci ambulance ko mu dem faju ji ndax nee na ba mu jugee tribunal ak léegi dafay miir am naqam di metti boole tekki dafa am ay jafe-jafe ngir a noyyi normal tribune nañu désordre total si ko ne ko weesu na loole li xew démb ci dëkk bi ni ko journal bi gisee moo di jëf yi wuyu ju kenn du lam banditisme à l'état gis nañu fi ay nit yu dem songi Sonatel bu Suprême sàcc fa gis nañu fi ay nit yu songi Auchan bu Mermoz doon fa sàcc gis nañu fi ay nit yu dogale ñetti bus yu Dakar dem dikk taal ko gis nañu fi ay nit yu caxat-caxate station Total ba ca joor li wàññi joote ji léegi ko noonu moo di taxawaay takk der yi mat nañu leen doon doye moo di journée sans frein yi ci Fati Soli njiital parti Pastef li di Ousmane Sonko Walf Quotidien nee nañu dañu ko def livraison ci tribunalum Dakar muy moom dib avocat maître Ciré Clédor Ly ba ci Guy Marius Sagna journal bi mi ngi ñuy xamal ne démb daaj nañu dëgg Sud Quotidien bi ne dëkk bi démb ci Dakar nañu procès Mame Mbaye Niang Sonko ginnaaw ñetti ñu ko dàqee fi ñu nekk nii nag lay jeex na faw procès dafay am journal Le Mandat nañu moom kay wiiri wiiri jaari ndaar yoon awul yoonu teggi tànkam ca fa mu ko teg mi ngi xam ne ci journal bi ne moom Mame Mbaye Niang baalewul négocié wul ñeenti weer ngi ñu dëkk ko sosal ak di ko tuuma léegi nag jot nañu leeral yëf yi mu def yépp moo ko tey ñu dem procès te procès dana am Mame Mbaye Niang yàlla sunu borom lay jël seede Ousmane Sonko amuti preuve ci li muy wax yorul it benn rapport Soleil national nañu layob Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko dàqaar nañu ko ba fanweeri fan ci weeru mars te gi yoon ci audience spéciale ñu bokk ci ñoom fi ñu teg seen di convergence des jeunesses républicaines di waa COJER ci journal La Tribune ñoo ngi dal ci kaw Ousmane Sonko ak ci kaw Alioune Tine coordonnateur di Moussa Sow ni ñu ci yéenekaay bi Ousmane Sonko li mu bëgg moo amul fenn dafa bëgg a nekk ci réew du respecté yoon mu ne fitna ji woote rek waroon naa tax démb waruñu ko bàyyi mu ñibbi këram heure bii moom Ousmane Sonko ci kaso bi la ko waroon fekk mu ne leader yeewi askan wi moo tax nanguwuñu wax Ousmane Sonko yu Macky Sall yi dolli ci na société civile bi ñu ci mel ne boole di waa coalition républicaine sàmm sunu réew journal la mandat mi ngi ñuy xamal ni jigéen ña ca nekk bi ñuy daje keroog ngir doon màggal bëccëg gi ñu jagleel jigéen ñi bërki démbu ci àllarba ji ca CICES doon ca waxtaane thème bii jëmoon ci waxtaan réalisation yu président Macky yi fa la ñu xamle ñoom jigéeni sàmm suñu réew yi président Macky moom la tànn ngir def ko seen candidat jiital ko ci élection présidentielle yu te nag tàkku nañu ba démb waaye juróom-benn fukki doomi Sénégal maanaam 60 la indi ña des yéenekaay bi nee nañu dañoo yebbi far foo ne dikkatuñu doomi Sénégal yi des ca Tunisie l'Observateur nee nañu ëpp nañu téeméeri Sénégalais